mel ni lenn ci njabootu sëriñ bi yàlla dafa dogal ñu nekk ci barab bi njabootu sëriñ bi nag ni ko Cheikh Mouhamadul Bachir daan waxee day wax ni dafa am ko ko masal laaj ni ko doole ji nga xam ni doomi Sëriñ Tuubaa am na ko laa bëggoon nga wax ma ko mu ne ko waxuma ju waxuma ju góor hmm. waaye doomi sëñ Tuubaa ju jigéen hmm. suñ dajale woon ñeent fukki xutbu hmm. teg leen ci benn balaa doomi sëñ Tuubaa ju jigéen jooju teg mu wat leen kon la sëñ musaa ko doon wax naan pendal mu gën tubay la jar naa raamal nitil yi moo gën kaala yañ araamal loolu moo dajee ci ñëw kii nekk fii nag di soxna Astu Gaawaan te lu ñu wax ci moom rek moom lañu wax ci njabootu sëñ Touba gépp ku amoon ab cër ci sëñ Touba la te amul nag ñi ngi koy xamee ci xasida yi sëñ Touba yi te cër bi xaarul ba noppee gis sëñ bi door koo am bi fi woy juróom di nekk la ko njëkk a ràññee ci xasida yi ñi mu bokkal sëñ Touba yi itam xam nga ci loolu kon loolu doy na ak sant yàlla ndax ku toll ni Serigne Touba kep ko xamne nangou nangu na sax bax ci kanamam ak saw melokaan loola yàlla nangu na ko waaye rasul lay nangu na te cieur bi soxna asu gawan amoon ci khassida yi serigne Touba moko ko jëkk kon nak ñogi ñaan khassida yoyu ag ci mom ndax serigne Touba dafa amul lumay khassida yi serigne Touba day wax ni lepp lu mu am digam ak boromam ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xasida yi moo tax sëñ Tuubaa moo tax moo doon ak bëggam moo doon ak yëngam moo doon ak dalam li ñuy wax ay néegi xasida ak def ko fi barab di ko warmaal ak di ci def parfum ñi ko jëkk def ci kanamu sëñ Tuubaa soxna Astu Gaawaan ci la bokk nga xam ne da ko daan wutal ay néeg ak i lal di leen ci teg di wut gët gu neex di ko ci sotti di ko liggéeyale sëñ Tuubaa jamono boobu sax am am am bi demee wut noonu nga xam ne nekk waaye da daan jafe lool mas naa am néeg boo xam ne dajaa defoon ay xasida ba noppi te néeg bi de bu tawee day seen mu sonn lool ci lu mu defaree néeg ñenn ñi di wax di wax ci suuf naan bu yéexee asamaan si dana taw ba tooyal téere bi waaye ba mu ko déggee da leen a wax ni li fekk xasida yi néeg bi mu nekk xadduma ko yàlla du taw ci ko du sotti ndox ci suuf si kon war ma jooju ak cër boobu ku ko yàlla sédd mm. kenn wérantewul ne am nga ab cër ci sëñ Tuubaa mm. Mm. sëñ Tuubaa it nee na mosu koo gis muy dox te ngàbbul xasida ci loxom saa bu masaan di dox foo ko fekk xasida mi ngi ci loxom am na bis boo xam ne mas naa waaxu wuti sëñ Tuubaa yor xasida ak waxaan yi bi mu dikkee ba tolloog sëñ bi ni ko sëñ bi ni ko ana loo yor mun ko xasida ak waxaan waxaan yi mun ko ana foo ko jëlee mun ko ci sama bagage yi laa laa ko doon xool ba ci laa ko sëñ bi ni ko xasida googu yi def fa ma ko doon woyee àggoon naa ci tawat yoo xam ne ak mitit woo xam ne lépp ci kaw lal bi laa koy def ci lay jullee ci lay jàppe ci lay bindee ba am benn bi naa Jibril moo ma feeñu ni ma sa borom nee na aaya bi ñu wax walaaw yaxsimukum minan naas bi woy ci xasaay sëñ Tuubaa nee na ma tàmbali ko ba ca mujjantal ga la Jibril ñëw ni ma sa borom nee na lu nekkoon ci yow bis na ko tey dindi na ko te loolu xasida yi ñoo ko may woon ni leen sama boroom xamal na ma ni xasida ak waxaan yi lu dul tawati dee man na ko faj ndax dee moom day coobaree suñu borom kon loolu doy na ak sant yàlla ci li ñu sëñ Tuubaa defal ma doomi sëñ Tuubaa waaye jànkatu xasida sax jamono bi sëñ Tuubaa nekkee gànnaar dafa amoon benn ku ko daan jàngal xasida yàlla dogal mu faatu ba sëñ bi amoon yéene indi ko ci réew waaye amul moyen yu tax man mën koo indi mu wërlu wërlu amul lu ko indi mu ni waaye sama borom xamal na ma ni kat naa Jibril moo fi ñëw ni ma jànkatu xasida bii sa borom nee na bu ko denc ci armeel yoo xam ne kuy moo yàlla dafa am asitël comme amul lu ko yóbbu ci réew ma nag nañ ma wëreel gànnaar armeel yoo xam ne ña fa tëdd ñëpp ay wëlli lañ wër amuñu ñu yebal leen ci benn naar bañ fa demee naar ba moo dikk ni sëñ bi am xam naa barab yu ñuy wax in fa ña fa ñëpp ay wëlli lañ sëñ bi ne kon nañ ma fa yóbbul jànkatu xasida boobu ñu ne ko waaye amuñu luñ ko yóbboo ñu ne ko naar bi ni ko boo luyee gëléem danañ ci mën a teg néew bi waaye mbooloo mi danañ mën a toog ci ginnaaw néew bi ànd ak moom sëñ bi ni nañ ma xaymaal gëléem bi luñ ciy joxe ma joxe ko ñu wax ko ko sëñ bi daal koy lijjanti tombeek waxtu tusbaar jot sëñ bi ni nañ julli ba sëlmal bañ jullee ba sëlmal ñu jël néew ba teg ko ca kaw gëléem ga mbooloo mi topp ci ñu war ko yóbbu ci armée keroog sëñ Tuubaa daa wax ne day ànd ci mbooloo ndax Jibril nee na ma sama borom xamal na ma ni bu ñuy denc jànkatu xasida ku ca top ñu jéggal adina ka alakhir señ tuba andi ci mbooloo mi ñuy dox ba yag mu taxaw ab di mu dal ni awma ndigalal dem dem leen yobbu ko te denc ko bu ngeen ñëwee danaa leen wax li ma dem bañ démé ba denc ko ba wat ko nak señ bi laaj leen ñu wax ko lañ ci bëggoon lepp mu am ko mu ni leen nak bi may dem nak sama borom mo yobal Jibril ni ma neel ahmadu Bamba armel yoyu mu jëm ña tedd ñepp ay walil lañ bu àggee ñëpp a dekk topp ko te kenn du nangoo tëddaat ci bàmmeelam wasalaamaaleykum wa rahmatulah